nga nit bu fekkee ne da nga jël pouvoir te jéggi ci ay bakkan di dem yow war ngaa seetaat sa xel war ngaa seetaat sa bopp sénégalais maa ngi leen lancé appel Macky Sall bi mu fi toogee ba léegi këru diine gu xalifa ba faatuwul amul parti parti bu am jàmm amatu këru diine gu am jàmm amatu Macky Sall duñu jàmm bëggut jàmm soxlawul jàmm du dox jàmm moo tax karawaanam bi fu mu toll rek nit ñaa ngi dee di faatu ñuy kar nit ñi di leen rey kon loolu ñu ngi la ñaan union européenne mu teel cee jóg ngir élection ko Macky Sall tàmbalee mën naa bañ a mujj jàmm ñuy ñaan ministre de l'intérieur mu jël ay responsabilités tey ñoom biñu demee ba toll fii ñu toll tey karawaan boobu nga xam ne ci la ci la ci la ci la ci la ci la arme bi faatoo tey ñoom dañoo waroon dakkal seen activité campagne ndax ñoo xam ne dañoo représenté population bi représenté réew mi buñ demee ba dee ci karawaan quatre personnes ñu di leen jaale seeni i mbokk ñooñu kon li jaadu woon tey mooy karawaan ba nga xam ne ñoo àndoon ñoom di liggéey ñu dakkal bépp activité bu ñu am waaye gis nañu ñàkk bu ñàkk yi Sénégal yi ak ñàkk bu ñàkk bàyyi xel Sénégal yi tax na dakkaluñ benn activité bu ñu doon def ñu ngi ci benn seen biir ñoom dañoo jàpp ne dañoo war a sangoo deret pour jot ci ñun nag dañoo jàpp dañoo war a lalal nit ñi sér bu weex tàll ñu jaar ci bëccëg jot ci réew moo loolu rek mooy suñu dafa am ñaari soxna maam xarit ak foo ak original soxna maam xarit bii ci sama ginnaaw di doomi sëñ Moustapha Bassirou ñu xam ne originalité bi nekk ci moom muy dëggu ak gëm Serigne Touba ak bëgg Serigne Touba ko ci beneen bi nga xam ne ay faux type lay topp ak ay nit yoo xam ne jëmuñ fenn xamuñ dara topp ci koo ne si dañuy dagg ay bopp dëkku nit ñu naan leen damay dagg seen bopp damay dagg seen tànk kooku du nit ku yiw du nit ku baax ndax ku waajal defar la am na baat yoo xam ne waroo ko yëkkat sa kàddu di ko def kon originalité am na foofu faux type am na foofu loolu tax ñu yëkkat suñu kàddu yi di wax loolu